supporté fa bopp ku mun wut ñi koy def nga fekkee ñu fañ koy defee te ànd ko ak ñoom ñu mën a doon waaye bisum gàmm nga yemale ko guddi nga ko jëkkoon ak ga ca topp loolu dara jël ko ci jullit ñu sant yàlla bu baax a baax na ci ko sant di ci dolli di ko ñaan si li mu digal di ko laaj ko laaj ci na yi ak yërmaane yi ñu enganeelam li asallah min fadlihi wa taxaw min fadlillah